di ndokkeel ci weeru tedd wi ñu nekk muy weeru muharram xare yi ñaan suñu borom tëbb ñu kàttan ak man ba ñu jeexal at ñi ci jàmm mu nekk atu naataange atu xéewal atu barke di jiital ci ñaan yi ak ndokkeel yëpp Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha waaye di ko ñaanal kilifa yëpp di ñaanal jullit ñi yëpp euh, comme ni ngeen ko baaxoo xam ne gàggante ko di jotaayu xam-xam boo xam ne danañ ci leeral ay bind waaye tamit ci tontu ay laaj ngeen baaxoo woon koo ànd ak euh, sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno mu baaxoo jàngal ay borom xam-xam te ki gën a fees di sëriñ Mbacke Abdou Rahman jotaay boobu moo del siwaat jotaay bi ngeen baaxoo ko ànd ak ñun ne ci weeru tubaab ak le 23 ngeen ci ànd ak ci mën-mën yi ak technique bi ak it lépp loo xam ne mooy tax ba mu sotti gën rafet gën a ñëw ba koo jot sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne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 wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalina maulana muhammadin wa ali ajmain jërëjëf sëriñ Abdul Qadir maa ngi lay nuyu di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñu ngi teewlu jotaayu xam-xam bi naa bu ñu saaree maulana cheikh Mouhamadul Muntaqa ndokkeel al umma islaami yi bépp di nuyu waa daayiratu muqaddamatul xidma di nuyu sëriñ Abdul Ahad bu sa mi nga xam ne yéen a baaxoo seq jotaay bi ñu war a dellusiwaat nag ci jotaay bi nu ko waxee ànd ak mbokk yi ci tontu ay laaj yoo xam ne dañ ci yàppalante ci suñu diine kon ñu ngi dal ñëpp fas yéene ànd ak jotaay bi sëñ Abdou Khadre. ok jërëjëf sëriñ bi kon xam naa dañu daal di dugg ci laaj rek bu ko defee mu bi jàll. mbokk mi dafay ñaari baaxoo di julli day ubbee ak julleem ci bismillahi rahmaani rahim. imam boobu bu doon julli mu yàgg mu wutal keneen ngir ne dafa am gàtt ndax kooka bu ñëwee moom it ay rakkam dafa ubbee ci bismillahi rahmaani rahim wala déet. waaw xam nga imam moom buy julli di jiite mazhabam lay topp ki nga xam ne mazhabam mooy basmala lay tàmbale suy jiite loolu lay def waaye ku mu wutalit bu ñu bokkee mazhab alhamdulilah bu ñu bokkee mazhab it mazhab ko ci lay tënku maanaam kenn waxul ne boo wuutoo imam faaw da ngay da ngay da ngay ànd ak moom ci mazhab kon moom na na na mbaaxoo jullee bu dikkee rek noonu lay jullee. Euh, mbokk mi mën nga ràññee kii dafa bëgg génn jaam yi soxla li ñuy li ñuy wax visa mooy tampon boobu nga xam ne mooy tax mu mën a am yoon mën koo may mu génn ci ci mën réew nee na nag fi ñu wutee visa boobu ñoom ñu yoo xam ne mooy tax ñu mën a bi ndax boobaa mën na abbu ay këyit kenn ci ay mbokkam kenn ci ay jegeñaale ngir mën a sottal euh, maanaam boobu waaw xam naa nag de su ma nee euh, tegu ci yoon de moo gën ndax dafa jóg di wuti lu baax kon def ci luy nuru riche luy nuru triche gënu te bu fekkee moom ay kayiti jàmbur la yóbbu buñ ko gëstoo mën naa leer ne du yëfam boo mën nañ ko xañ lam doon wut mën nañ ko xañaale leneen sax loo xam ne looloo ko waral bu hmm. tax yu mel noonu li ci gën rek mooy nit ki fexe ba dëppoog li waral xëy na nag buñ demee ba mu mel ne ak tooñ nga xam ne dañ daanaka dañuy laaj loo xam ne ngir tànjiis la wala yu mel noonu waaye lor ñëwut ci ñàkk ci ci ci ci la du farata daal du doon lu mënta ñàkk ci li ñuy soxla su boobaa nag mën na nuru ngànt ci koo xam ne bëgg naa jàng it ñu bëgg laa gàllankoor ci yoo xam ne la waaye daal li gën ci ab jullit lépp lu muy wane ci ay kayit ngir bëgg dara mu jaar ko ci yoon fekk lam wane mooy la nekk mm. waaye bu dee loo xam ne nag jàmbur ak moom nga soppi ko def ci tur bu feeñee mën naa jur leen loo xam ne gënul ci ab jullit gënul ci mm. mm-hmm. euh, moom it nag. moom dafay laaj moom ne gàtt mi nga xam ne mm. waaw xam nga euh, ngénte sunna la bu doom juddoo ba am juróom-ñaareelu fanam ñu tudd tudd ko wat ko rendil ko tuural ko dara loolu sunna la tur dara gi nag dañ cee taamu xar moom ndax yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam xar la doon tuddee ay njabootam waaye nag ci borom xam-xam yi li wax mooy moog të moog tëb suñu ak nag ak gàtt yëpp ko mooy xar ak béy kon euh, bu amee xar moo gën waaw moom la sam doon def waaye nag bu ko amut am béy baax na yéene ji desit ñu di ko baaxoo tabaskee manis na ko ngénte li ci am solo rek mooy sart yi sart ci tabaski moom la ci sart bu dee xar na mat at bu dee béy na mat at ba du ba tegal dara man at a weer yu mel noonu ñu di ko bàyyi xel moo ci am solo ak mun na mucc ci ayib yi nga xam ne bu doon tabaski du mën nekk tabaski ayib yooyu bu ci nekkee du mën ngeen a gente na li mat a bàyyi xel foofu rek ñu bàyyi xel ne ngénte ni ñu koy baaxoo defee fii li doon sunna si salaam mooy mu ray gàtt bi ñoom waa kër gi ñu xewlu ci ñu tibbal ci ñooñ dàndal ak ñu néew doole waaye gàttul tudd def ko aw xew moom du sunna si yonent bi alayhi salaam yoo xam ne ku bëgg a woote aw xew bu sum ngénte ngir sant yàlla wala boog dajale say xarit ngir namu leen da ngay wut beneen gàtt boo xam ne moom pour lool la waaye gàttul tudd moom woo ci ay nit ñi ci dajaloo wax nañ ne du sunna si yonent bi alayhi salaam daw ko def euh, a jullee bu fekkee bi ñuy door a sëlmal la ko fàttaliku day day sujjóot rek ndax sujjóotu xabla salaam boo ko fàttee ba sëlmal te yeggut da koy sujjóot day soppaliku nekk baada salaam bu fekkee nag daa koo fàtte ba sëlmal ba génn jàkk ja xam daal wala yàgg naa mu dal ko fàttaliku jéggal nañ ko ndax lim bàyyi ñaari sunna la toog gi ngay toog ngir ngir taay sunna la jàng baat taay sunna la ku fekkoon nag day ñetti sunna mu fàtte ko ba sëlmal lu yàgg waa julli gi day yàqu moom waaye moom bàyyiwut mu ñetti sunna bu ñaar la bàyyi mooy jataay bi defu ko jàngut baat yi kon ñaari sunna rek la bàyyi bu jataay bi xasee yàgg bu sëlmalee lu yàgg te fàttaliku ko dañ koy jégal du sujjóot waaye du julliwaat jërëjëf ko nag mu war a nu muy na ko jàpp ne alal for alal for bu dee ju am solo da koy xam ne diir bu yàgg tolloog bu dee amul solo mu xam ne ko ay fan ci ñi fi baaxoo jaar hmm, bu feeñut ñetti anam yi lu ñu def baax na mën na ko lekk mën na ko saraxel bopp mën na ko saraxeel borom waaye lu ci mën a xew ci yëpp nag day yéene waale su borom fayam fay kon moom loolu la ñu def baax na kon daal bu bu fekkee ne client yi fay ñëw xam leen ne man kat daa am ku fi bàyyoon weccit ku ku ku ci xam ku mu doon hmm. bu fekkee am na pass Facebook mu def ko ci xëy na am na ay client seq nañ bu toogee fan bu fekkee alal ji bariwul lool kenn àdduwut na ko li gën a jàpp daal mooy mu saraxel ko waaji waaw bu feeñee baax na bu feeñee mu xam ne kon moom wàcc na ko

ndax dañuy wax ne passé boo ko ajee ci lu xaram dañ koy teewal naan sànga dafa xaram waruñ ko war may muy naan sànga dañ ko war na ko sëy bi tas na xaraamu mu lo raam loola euh, jotuñ koo atte ba mu na ba mu far daf ko bu fekkoon nag maanaam daa wax loolu yoon yëgu ko ba ndaw soo naan sàngara sa kon sëy bi day wéy waaye fi mu waxee ni moom benn mënta naan sàngara sa ndax tuuru na te li mu waxoon it saa bu su ko nit waxee dañoo war a sëy moom yoo xam ne passé muñ ak ci lu xaraam dañ koy teewal te mu ci waat lu xaraam da ko aj waaw kon dañoo waroon ci saasa rek bu fekkoon na ko yëg ci saasa la koy ko moom sëy bi tas na jigéen ñi ne tàmbalee daw kon ginnaaw lay am na ci mënu koon an far ndax tuur na kon loolu gën naa gën naa gën naa mooy sëy ba tas na ko waaw mooy sëy ba tas na bu yàgg mhm. <laughs> kii moom day laaj li eh, eh, suñu borom di wax foofu it li ci borom xam-xam tafsir wax moo ne yàlla day wax yu wax yu ilham maanaam nit ñi kenn ku nekk na ngay dox yàlla ko xamal mm. kon moo moo wax yu yembu ne ko demal ci montagne yi nga wut fa ay kër mm. wax yi dem ak garab yi ak sax li nit ñi defar di ci dëkk maanaam fu ci nekk rek daa fa def ay seen i sugum fa def seen i seen i seen seen i kon daa bëgg wax rek ne eh, yàlla su som li lem di def li yam buy def wut barab ba def fa ak lem bu mën a jëriñoo yàlla ko xamal ñu ma xamal ne doomu aadama yi seen kii moom itam kon ñu xam ne mbindeef yàlla yëpp ci loxo yàlla ak ci eh, tënku yàlla ñu biñ mhm. waaw xam nga sëñ Abdou Khadir niñ ko xamee nit ki bu fàttee wala mu nelaw ba waxtu faat ko saa bu yeewoo rek la foofu may waxtu ku fàtte ak julli saa boo ko fàttali ko may waxtu mhm. barab wax naa dañuy tere ko fa julli wax barab loolu bokk julli farata foog fàttali ko rek mu waxtam kon ko fàttali ko donte jamono janti fenk la day fay suba te julli suba na a lañu wax ne bu dee naafila fajar gi moom day nekk ba waxtu naafila dagal mu door koo julli kon bu fekkoon yor yor la fàttaliku day fay suba gi farata bu noppee sañ naa daal di ñaar ak fajar da loolu nag lii muy laaj mel ne xaw ma fu mu jógee am na ñu koy faral di wax jàpp ne bu xasee weesu da ngay nekk bu waxtu ñëw loolu eh, moom xaw ma fu mu jóge hmm. waaye li nga xam daal moom te yéen ko jàngale ko mooy ko fàtte ak julli wala nga nelaw ba julli woo ko saa ba nga ko fàttali ko wala ba nga yeewoo mooy waxtu hmm. kon waxtu wañ ko santaane woon su yeewoo te ko mu ngi amal benn bàkkaar hmm. ndax bu doon nelaw la moom jéggal nañ ko nelaw ba mu yeewoo lu mu geneen yeexe ko ko daloon nag léegi moo ko tey kon saa yu ko fàttali ko rek ci la war daal di waaj dem julli bu dee farata bu dee naafila gi nag bu dee noonu mu ko xay fajar moom

ndax ah, boobaa sañ nañ xam nga li borom xam-xam wax rawat na ci masab Malik saa bu ñaari ndox yi dajee génn ndox mi bi dëgërut kon wax ne doom bi dañoo am yaakaar wala dañoo foog ne wala dañoo jort ne bu juddoo day nekk day am gàllankoor loolu luñ foog rek la yàlla moom jaam yi mën naa xëy dindi ko mën naa doon wér ñu mën ko faj bi ci des it jaam judduwaale loolu noonu aw yiw la ndax nu juddoo te mu soog yàlla maanaam perte ma amu ci ndax bu ko yàlla na toog bu judduwaale wéra di yooya aw yiw tuyaabal ñeel ko ñeel ay yow jëw loolu de su ci yàq xam nga lu tax ñu sañ ko yàq ñu ne bu continuer yaay ji faat maanaam yaay ji mu mënta wéy di ànd ak ëmb bi xam-xam saxal na ne mënta wéy di ànd ak ëmb ba am doom bu ko defee dana ñàkk bakkanam bakkan bi nga xam ne ak nekkam leer dee su ko jëndee bakkan bi nga xam ne nekkam leeragut foofu rek lañ sañee avorte yàq ëmb ngir yaay sowe yaay waaye fekk yaay ji mën naa dund doom ji dund lu mu mën a indaale ci ay ay yàllaa ko bëgg noonu te loolu aw yiw la ndax yàlla ku mu nattu ngir teggalee bàkkaar la wala yokk say tuyaa bu dee ab jullit mm-hmm. yàlla du nattu ab jullit rek nattu ko ngir nattu ko faaw day yokk aw yiwam wala am na yii mu war a am te dafu defut lu ni mel mu teg ko nattu ngir jox ko kon maanaam mu jub daal ñàkk mel ni gën a layoo jërëm mm-hmm. du layu kon nañ fexe bu mu jub buñ ko defee day jàpp dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo rey nit waaw mm-hmm. mm-hmm. ah, moom li mu laaj mooy nee na benn waay la mu jot a yor ci alal bu boobaa la mu yor ci alal ci Europe boo génnee asaka ndax da koy da ciy boole li ñu yor alal ji ñu yor fii wala déet nee na at at dama ngay yaxantu ndax bu alal jam yor fee ca loxoom ca di garam beneen di garam waaw xam nga sëñ Buxaari bu dee alal ku yaxantu moom atam mooy atum capital bi alal ji mu déparé woon di yaxantu bu ma tee at rek te mu yor lu man nisaab asaka da koy war doonte xam nañu ci bénéfice am na loo xam ne mën naa nga ko waaye bénéfice day topp ndey ja kon li mu wax nii àll ji ne fi fekkee ak ah capital benn la woon moom la tàmbalee fii moom la tàmbalee bu bu xasee mat nisaab day boole alal yëpp xam ne am na temps mu génnee ko asaka bu dee alal yu bokkul nag li ñu door a xool jenn ci nekk matee nisaab waaye bu fekkee daal jenn alal ja nga xam ne benn capital la amoon ubbi fii bitik dem ci bitim réew dafa liggéey nga xam ne ñaar liggéey yëpp nday ji jenn jee wax saa nday ji amee at mu taxaw réglé yëpp lépp boo xamee ni mu toll mu génne ko asaka loolu xam nga seeti ko tawat moom bokk na ci àq yi jullit ameel mbokkum jullitam su wéree dee nga seeti ko bu la wooyee nga wuyu ko. bu faatoo nga ànd ci robam jullee ko denc loolu ci àq yi ñu amee lanteel ci la bokk bu defee nag teggee ni mu am mooy nit ku wéradi dañuy bëgg nga dem fa ci waxtu woo xam ne am nag dal ñaareel ba it nga bañ faa yàgg wala nga defa di wax wax joo xam ne day yokk ak wala da koy tax mu gën a am kii gis ñoo xam ne ñu dem di jooy ko fu mel ne dangay gën a tas yaakaaram ndax jàpp ne du koy faat la wala yu mel noonu yëpp moom ta moytu ñu mel noonu mooy dem moo gën ci ñoom ñi nga xam ne yépp bu ñu demee mën nañu yokk malade bi ak wéradi waaw kon dem fa daal ci waxtu woo xam ne docteur yi ñaari daan di joxe ay waxtu yu bëgg ndax yenn wax dañ ci liggéey di ko faj ak def yëpp waxtu yi ñu wax ne ku bëgg a seet bi ñëwal ci waxtu yi nga tënku ci waxtu te boo dikkee it nag dox farata tib ñaanal ko lépp lépp gën nañ ne fanaa ay góor rek ko yërëm yërëm ak ay góor amul amul njëriñ ci fa ci wéradi benn njëriñ dañu bëgg nga ñaanal ko yàlla yëkkati ko yonent yàlla Muhammad alayhi salaam noonu nag ku seeti ku wopp wax euh, wax euh, asalullah al azim rabbal arsil azim ay yashfiyaka maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi moom aras mu màgg ga yàlla saafara la ku seeti ku wopp ginnaaw wax bismillahi ma nga wax ko juróom-ñaari yoon bu dul woppi ndee dana jóg dana ci yu mel noonu aw yiw la aji aji aji seeti wopp ji di ko yóbbaale maa ñaan ku baax gu ñu xam ne kat gis na ko ñaanal ku fekk wéra nga xam ko boo demee nga ñaanal ko waaw waaye ñaan ko daa am na solom om asalullah al azim rabbal arshil azim ay yashfiyak ko wax juróom-ñaari yoon ci ku wéra bu fekkee ne ab diggam jeexul ma maanaam matalut dana wér moom mooy mm-hmm. xam nga li gën ci ab julli moom te war sax mooy mu jàng alxuraan niñ ko wàccee am na ñoo xam ne yàq gi ngànt la ci ñoom ñu dotob ñi am ñoo xam ne ra mun nañ ko la la wax mm-hmm. am ñoo xam ne yàq lañ ko jàng ñooñu noonu la ñu yàlla bindee. Mm-hmm. Euh, comme ni noonu nag li ñuy bañ mooy mu bu mooy bu mu jiite ku mel noonu boo xamee xam ne yàqu baat waaye tëyu ko. bu la jiite woon julli ko baax na gënul nag waaye nga def ko sa iliman tey ko dañ koy tere boo ko def da nga am dañuy wax ci masab moom la julli gi wér. boo royee ku yàqu donte Faatiha lay yàq fekkee tëyu ñàkk tey mooy da ko réere wala da ko fàtte. wala da ko tële. da ko ko mënut daal da ko da ko réere wala donte yàq bu rëy la ñoom dañuy wax ne du tey julli gi baax na li baaxut daal mooy nga yàq a baat te tey ko. yàq goo xam ne day soppi maanaam loolu moom su ko aji julli dafay julleem baaxut moom mi jiite ñoom jiite seen julli kenn baaxut kenn kenn julli kenn baaxut waaye bu fekkee nag lo ak tële la wala ak réere su boobaa moom roy xam ne kii nii la mel nga ba noppi ngay roy ci moom la ñuy tere boo ko defoon gi baax na loolu mooy masoog imam Maalik jërëjëf sëriñ loolu ci euh, leer na biir waaw jàkk xam nga sëñ Abdul Xaadir dañoo santaane eh, matal julli gi yoon jël moom ay sant daana wax ne yamal leen sàpp yi taxawal leen mbool mi ngi bokk ci matu julli gi wala bokk mi bokk ci xamatu sala taxawal julli gi ñu digle sàpp yi yem ci la bokk daan nañ xam ba mu topp sàpp yi di jooyanti ba ñëpp tegu noosu fenn wu ne taxaw fa nga war a taxaw mbagg ak mbagg tànk ak tànk ba yëpp yem mu door a kàbbar kon dañoo war a xam ne lool ci julli la bokk fii nag bokk na ñi nga xam ne ñi dañuy dàkk bunt dàkk fu gën a féex ak koo xam bu sëmmee mën a gaaw a génn da xam ne yooyu ji jàkka liñ ci santaane boo dikkee fi gën ci jàkka mooy ginnaaw ilimaan ginnaaw foofu mooy barab bi gën kon ku ñëw foole toog la fa tàmbalee nag ndeyjoor ak càmmooñ sàppe si mat kenn wër ta sos sàppe te ci feesu bu sàpp su njëkk si feesee ba kenn xajitu fa nag ñu tàmbali sàppe ñaareel waaye fi ñu fi ñu fi ñu fi ñu tàmbale ko tàmbalee sàppe ñaareel kenn du ko tàmbalee ci ndeyjoor ko tàmbalee ci càmmoñ ci digg bi lañ ko tàmbalee moom noonu lay def nga xam ne comme ça boo duggee jàkkar yoo xam xam fa nga jëm fi fi nga fekk fa fekkee sàppe su njëkk si la feesugut amoo sañ-sañ toog feneen demal fa sës ci wetum ndeyjoor moom wetu càmmoñ ga nga toog foofu bu foofu feesee nag ñu sos seen noonu lañ koy topp ba jàkk ji fees loolu lu ñu war a bàyyi xel la waaye imaam yeeg ñi ci jàkka ji it war nañ ko bàyyi xel bu bàyyee nit ñi rek kenn ku ne seenu ñàkk xam ñenn ñi seenu taayal mooy waral fuñ jot toog ak ñenn ñi bëgg na ci jàkka ji ne feneen mooy tax dañuy dàkk bunt ñu ngi yër lu lay xew ci biti léeg-léeg ñu ngay wax wax téléphone ak yu demee noonu da nga xam ne yàlla la ñu wuyu ci am néegam ba noddukat ne allahu a xam ne leneen lu mën a doon li a itteel loolu nit dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax buñ jullee ba noppi nag ba dellu ci kër yi dellu ci yeneen yitte yi. jërëjëf sëñ euh, euh, euh, doom sañ naa tere waajuram boo jëfandikoo loo xam nga al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar boobu ñun ñëpp lañ ko sant. man ra'a minkum munkaran man googu ci alfazul umum la bokk. Mm. xëy na nag. doom ni muy teree waajur mën naa wuteeg ni muy teree keneen ku dul waajuram li gën daal ci lu mel noonu mu gis ña moo ramanteeg bàyyam seq bàyyam mu waxtaan ak ñoom xamal leen ne sama bàyyi kat mi ngi def nangam nangam te diine nangu ko fexe ba ñu waxee ak mooy gën am na loo xam ne boo ko defalee boppam mën na koo jural yeneen donte warteef la moom fexe ba mu bàyyi waaw nu mu ci mën doxee ba mu bàyyi ko rek ci ku yàlla sant la bokk. waaw kii dafay bu ñi ko góor ñi sabal ci bu Malik dañuy wax ne at tasfiqu lin nisaa'i jooju nee na ñoom du du ndigal waaye waxin la ci ne jigéen moo baaxoo tàccu dañuy wax ne moom sàbbal wax subhanallah ndax kaddu jigéen gi wax awra la mooy gu muy neexal waaye ku ne ci ginnaaw imaam bu juumee fekk ay jigéen rek ne fa dañ koy wax subhanallah ñi ko góor ñi wax loolu mooy mazhabu Malik ndax ñoom dañuy wax ne man naa baxu boobu man ji ci alfaazul umu koo xam ne dara jot na ko ci julli na ko déggee jërëjëf xam mooy waaw kalaala ci miraas la nit ku faatu amul aslu amul fara bàyyiwul aslu bàyyiwul fara mooy kalaala nga xam ne bàyyam néew fa maamam néew maa ña ko meññ kenn néew ci góor waaye moom it meññut kenn amul doom amutub sët nga xam ne ñu ko doon daal ci xawaasi lañ ay bokk ñu bokkal baay ñu bokkal day ay ay baayam yu ndaw ñu mel noonu miraas moom la ñuy tudde ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbokk jullit yi nga xam ne yëpp am nañ yitte ci di yónnee ay laaj ngir bëgg seen diine leer leen ndax lu am solo yàlla dañoo indi tënk ñu ci diine te yàlla bëggul ko koy làmbut kon am na solo lool lu waay xamut mu laaj kon lu am solo la kon ñu ngi leen di soññ ci loolu di ñaan yàlla di ñaan yàlla ëtt bi nga xam ne it ak mbokk yi koy ndax lu am njariñ la nit ki jariñu ci yow te lim jariñu ci yow bokk ci li gën fu muy xam fu muy teg tànkam ba ëllëgee moom ngërëmul yàlla kon ñu ngi siyaare ñëpp di leen ndokkeel di leen baal ak koy baalu di ñaan yàlla ñu teewe at yi bare bari te li ñuy def ci lu baax yàlla nangul ñu ko li ñuy def ay safaan yi yàlla jégal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf sëriñ ñu doon topp yëpp ci beneen gàggante ko nga xam ne comme ni ma waxee ay jotaay la yoo xam ne baaxoo nañ ko ànd ak suñu laxat dañ ngeen koy àndal ak sëriñ Jiire ak sëriñ Cheikh Diop ñu jàppale ci technique bi muy jotaay yoo xam ne dañu koy faral di amal ci le neuf ne ak le vingt incha allah tey tontu nañ tolloog fukki laaj ak juróom ñu leen jox dig daje bala ñëw incha allah ak ku ñu ko ñu ñëwaat ci kanamu sëñ bi taataan euh, tontu yi nga xam ne dana jariñ ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu fekkee ak tal euh, lépp lu ñuy ñu tase ci ak ngërëmam te liñ ci am mu barkeel liñ ci làq mu yàq ko mu làq ko fu yàq agul jaay sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barkati Cheikh Xadim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam